président de la république Macky Sall lajj na lajj na ci emploi wu jeunes yi lajj na ci santé bi lajj na ci éducation bi lajj na fépp foo jël mi ngi metti léegi nag liñ koy demandé mooy ni président Abdoulaye Wade defoon ni président Abdou Diouf defoon nommer une personnalité neutre et consensuelle pour organiser l'élection. 3 millions de cartes il y a 3 ñoo centre d'inscription yi ne disposition pour que sénégalais yi ko pour que le 24 février 2019 nous

Mboumoumdiam, parce qu'on est réduit en esclavage dans notre propre pays et nous disons non à ça non à l'esclavage par le président de la République et le pouvoir actuel nous voulons nos cartes nationales d'identité incha allah zéro madame zéro Aliou ministre bi zéro dama ne nañ jox marchand ambulant yi seen carte ramasse bi ñuy ramasse teguñu ko fenn dëkk bi dafa kale kàgg demul dikkul marchand ambulant yi ñuy ramasse guddeeg bëccëg Macky Sall da nga xam ne anduñu ak yow moo tax nga ñuy tey sama teewaay fii marchand ambulant yi daal représenté ci coalition bi. di ñaan yàlla ñu jox ñu suñu carte yi Macky Sall ñu door ko premier tour ñu bàyyi Karim Wade mu ñibbisi Khalifa Sall ñu génne ko ñu door Macky Sall premier tour am dara.